alors Mbaye da ngaa baal si. non tey dama baal si waaw. <laughs> waaw gis Youssou Ndour mu defako si papay xale yi. waaw papay xale yi la. waaw moom wax dëgg yàlla euh, pour la première fois pour pour ma dégg pour ma dégg ñu ne am na kuy tëgg Youssou Ndour mooy tëgg pour ma dem xooleel quoi premier jour. sala soirée non soirée Youssou quoi fii waaw mais man ay at a nii nag dew ma soirée quoi. demoo. ah dara dama kii rek liggéey bi ma jàpp rek xam nga liggéey bi dafa métti. mais na nga gis premier mu ñëw dëgg fii fii fees dell nit ñi ñëpp ñëw. waaw Youssou la Youssou moom su wootee ñëppay ñëw comme dañ naan Youssou mooy woykatu jinne yi waaw waaw su ñëwee su su wootee ñëppay ñëw ñëpp ko bëgg Youssou xale ak mag ah mag ak ndaw ñëpp ko bëgg kenn ko bañ. émission émission guddi ga nga nekk di ruube di génne ay secret di inventé lu ne artistes yi euh, euh, jiñ nañ la ko wala célébrité yi pourquoi nga jël lool noonu di def noonu ba des fois nit ñi dañ la siy mere. waaw ni ñi dañ ma siy mere soo dee xoolee li tax génnatuma lu tax dematuma fu bëri loolu la yenn saa yi da ngay jékki damay jékki-jékki li may jot sax pelante si si kii si semaine wa damay jot ay pelante lu bëri xam nga euh, chaque semaine defe naa dinaa wuy ji. wala iivuy ji xam nga. waa ñu bëri. waaw ñu bëri ay ba ay Baye Sall ah Baye Sall waaw Baye Sall dafa def plainte fan yi passé ah. xam nga ku nekk beneen mara benn mara fan yii passé defoon na fi benn plainte comprendre nga waaw chaque jour daal plainte yi wala yenn saa yi ñuy woote di menacer di saaga xam nga dem na sax ba jëlatuma téléphone loolu yëpp si liggéey bi la. parce que xaalis sutura jàmbur yi ngay def non loolu du man Mbaye dama damaa gëm loo xamante ne bi fi ñëpp nekkee. di def comédien damaa indi beneen facette comédien di sol yëre yu ëpp euh, di di makki yow di kii ba ñen ñeneen ñi yeneen jeunes yi fekk si ma léegi nag damay su ma tourné carte gi damay def loo xamante ne kenn def ko soo xoolee journaliste yi jamono ji dañoo commencé am fit ndax man da ngay gis waaw waaw dama leen may fit parce que non non parce que damay gis man yenn saa yi euh, xamul tax lu tax defagutuma interview comment woo man déedéet parce que journaliste yi euh, dañuy complexé xam nga wala dañoo complexé taxaw koo xamante ne dafa siiw yenn saa yi dama koy gis seen genre gii. xam ne déet déet non non yenn saa yi damay gis animatrice yoo am animatrice wala animateur. koo xamante dafa am tur koo xam ne dafa am tur duñ koy laaj kii yenn yi wala ñu koy rus wala ñu am complexé mais man complexé wu ma ku yàlla dund man complexé wu ma yu sulu sax complexé wu ma su ma taxawee si ko invité woon naa ko wax lu ma ko bëgg a wax problème yàlla noonu la ma bindee comprendre nga loolu la nag. loolu su ko sénégalais yi xamee rek xam naa duñ sonn. waaye ah, na yow dangay ngay xaawi sutura jaamur. loolu loolu du xaawi sutura parce que yow da ngay jëw li ko li leen nit ñi di jëwee yow si yenn saa yi nga romb am ku la jëw ku jëw boobu nag laay gis wax ko ko comprendre nga moom nag mu tott ba si jëw bi loolu la rek mais du dara yow artiste artistes yi dañuy waxante sama diggante yàlla rek artistes yi ñu jigéen ñi ñu si am jëkkër di tas ah yow yow. kan moo fi am amagum jëkkër toog fa toog sa jëkkër. Aïda Samb. ah Aïda Samb. mais Aïda Samb waaw yàlla na ko mais nañ dem ba si kanam artistes da ngay gis da ngay day day bëri ay services yoo xam ne da ngay takk da ngay takk sonn ah. réseaux sociaux yi parce que dañoo dañuy tàmm benn vie benn vie boo xamante ne vie boo xamante ne sa far da ngay génne benn single am benn far sa benn far ku noonu nopp ku nekk Canada comprendre nga. ku nekk Canada woo la xam na la léegi nga dem wuy ji xam nga ñu pare hôtel fii ah xàppi nampu ah ñëw xam nga wax nañ wax dëgg fi nekk. nañ wax ne xale jigéen waykat yi dañoo tàmm nampante comprendre nga. dañoo tàmm nampante ma nga yow soo nampee namp namp namp ñu la ba nga am jëkkër ah léegi yow soo sa xel su xalaatee ne dootoo dootoo voyager seeti soo voyager tul kay moom ah mooy loolu ah dangay dangay tas. loolu la rek lu lañ nekk man li nekk si dëgg la dëgg laay wax dëgg la dañuy namba de xam nga moo loolu quoi yee waaw yee wax sañ wax ah salaam kay lekkuma kenn lu ma nekk laay wax su nekkee dërëm sax maa ko may sam bopp kenn ragaloo ragaloo sa vie tamit risqué ma rey man suñ ma reyee sama liggéey ñu xam ne mbay nag rey nañ ko si liggéeyam comprendre nga waaw noonu laa ko gisee. jaajëf taal bi Serigne Touba laa du ragal dara. d'accord dinañ eggale waxtaan bi.